asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi teew di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur sant sunu sëriñ bu baax bi sëñ Fallou yal yàlla yokk leeram taas ñu ci barke ngeen jéggal ma nag taraak bi ndax mun a ñàkk ndax mu new ma wax waaye nag dadi lu mu gàtt gàtt rek dafa rafet ñu sànni ci bu doon ñaari kàddu waaw sant sunu yaay bu baax ji fi nekk di ñaan yàlla mu yàggal ko fi guddal fanam yàlla ko fi yàlla bàyyi. ba suñu bébét ci moom ñu eggale ko waaye jëmm ji toog dafa may yaral lu ne barke Sëriñ Touba ndax seetaanuñu daara seetaanuñu benn yoon daf ñu yoral suñu yaay te man maay taaw waroon ko mën a yore nag teg ko sama wet mais daara moo ma ko yoreel moo koy dundal moo koy solal moo koy lu mu soxla moo koy def bu sama yaay feebaree daara mooy faj mooy jënd ordonnance mooy yóbbu hôpital soog maa woo ba pare ni ma jarul ngay ñëw tane na noppal ma ci lépp man mii lu ma bëgg su ma ko nee allo Daaro lii laa bëgg daf may fekk si daf ma naan maa ngi la koy dugalal mu jàpp jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax kon macha allah dafa lekkul dara bàyyi ñu lekkul dara bàyyi ñu ñun dañ koy ñaanal gudd fan ak wér loolu laa ko waxoon démb te laa koy waxaat tey dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ndax bu amee jàmm dañuy am jàmm kon yàlla na ko yàlla lafal cet guddal fanam wéral ko kàttanal ko bàyyi kook boroom këram bi may leen njabootu jàmm ak salaam ndax jaaxaluñu nag benn yoon ndax bu ko neexoon appartement dafa xew mu jël appartement moom kese toog fa di woo sama yaay semaine ba semaine wala lu mu am sànni ko ko mais defu ko daara ba mu ko xamee ba tey mu judd fu mu war a juddoo nag nekk gor piir nekk doomu gor jaaxaluñu benn yoon danaan dem tournée de man maa koy gën a jege sama kër lay ñëw fanaan wala lu mu guddi guddi bu ma woowee jotuma daw na ñëw te fanaan sama ginnaaw yaay jëkkër moo ko tàggaleeg sama ginnaaw yaay jaaxalu ñu benn yoon mënoon na di fanaan ci boîte yi ndax moromam yi ñoo koy def mais mosu ko def xamu ko wax naa ko ko démb nee naa ko mënoon nga boîte boo fanaan bu subaa nga war beneen mais mosoo koo def sama yaay njabootam sama yaay njabootam kon ku am ku mel nii ku ko am danga koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér yàlla guddal fanam wéral ay cëram ndax nag ci am ah man mun naa ne sax moom ma yor man mun naa ne moo ma yor lu ma soxla su ma ko nee daara ci am lii laa soxla bu waroon a faj soxla da koy bàyyi yónnee ma ko te mënoon na ne nag dimbali ma yaa ngi sëy ndax su xal morom sa moromam yi rek ñoo koy def mu ne ma dangaa lakkale maa ngi yore sa yaay maa ngi def lii nga bëgg ma def laa woowuñu ci courant woowuñu ci luyaas woowuñu ci dundal sama yaay woowuñu ci dara contraire day def li ko war ba pare waññeeku ñëw defal ma man li ma ndax yaay la may woowe jëkkëram jii ci biir néeg bi yaay la may woowee kon nag man sama xol sedd na ndax jaaxaluma te waatal naa ko ci barke Serigne fàll bu dee ni moom la ñu yaakaar man ak yow ñu bokk ko doo jaaxle mukk daaru yow doo jaaxle mukk te neewoon naa la démb nañ la ni jàkk la Serigne Fall waxoon Senghor te dinañ ko ko def de te def nañ ko ko mais day yokk kii lekkul dara bàyyi ñu tey bu tabaxul étage tey ñun ñoo tax ñun famille barke Serigne Touba day fayeeku balaa muy jox kenn xaalis bi sama yaay lay fekk fu mu toog ni ko lépp a ngi nii xoolal loo ciy def jafe na ah dafa jafe fi ñu toll nii mënoon na yore xaalisam teg ko ci saagam jël benn 10 000 ko ko mais salaire bi lay si ñëw jox ko li ko mu ngi noonu xoolal looy def ci kër gi sama yoon nekku ci buy dem yaay jox ma paas barke Serigne Touba boobu yorul oto buy dem danaa ko yaay jox ma foofu paas te li mu yore yëpp jox na ko sama yaay mënoon na ko ci bañ a fekk kon léegi nag ñun dañu war a sant yàlla di ko ñaanal di ñaanal nawleem yu baax yi fi teew waaw te xam ni yéen ñii ay royukaay ngeen wax naa leen ko léegi ndax série yi ñuy seetaan yi man série laa bëgg dama koy seetaan di ko dund foo seetaan ñi ngi saaga ñi ngi wax lu ñu war a wax ñi ngi wax lu ñaaw mais jamais ñu gis ko ci yéen ñi toog ay royukaay ngeen macha allah ay royukaay ngeen yal na leen yàlla dëgëral kàttanal leen wéral leen lu ma koy wax moom mooy loxoom set na ba pare macha allah loxoom set na ba pare na gën a xam boppam gën a xam fi muy teg tànkam macha allah yàlla defal ko cet loolu daal laa am ci lu may wax moom sama taaw la mooy sama taaw bu góor macha allah la may woowee dama leen di ñaanal yàlla may la am sëñ Fallou rek loolu laa leen di ñaanal yàlla yokk ko moom it ba mu yokk ko di gërëm sama di gërëm sama doomu ndey bii nag. te mu ngi noonu ah, ba tey ah, mbokki Dakar Buzz ñu ngi ci. anniversaire bi kii nag ñuy toogal moom kenn dootu ko laajte ñëpp xàmme nañ ko ci kooru biddéew xàmme nañu ko ci euh, euh, euh, daaru am boroom dina ma neex borom bés bi maa ngi lay nuyu maam Diarra Germain. maa ngi lay fay Lalla ay xale bu rafet. kooru bi waaw maa ngi nii dëgg neexul. ana caamaa safar bi. eh caamaa fase naa ko. <laughs> ñu ñëw tey fekkaat la ci anniversaire bi ban yëg-yëg nga am tey ci sa bésu yaay. ah Lalla Aïcha en tout cas contentement la ñu am di ñaanal sama yaay bu baax a baax yal na yàlla guddal fanam Thiam madame Samb kooku man xamatuma lan laay wax ci moom parce que samay wax ci moom damay jooy donc dama koy bàyyeek yàlla sunu borom ak Serigne Fallou mi mu yaakaar yàlla mi am fay yal na ko yàlla fay xolam en tout cas ku baax la. en pour lan ku gën la ku yéene ku yéene ñëpp la rawatina artiste comédien yi su sañoon lu mu am. comédien yi dañ cee am. en tout cas. sa yoon nekku si. <laughs> Alaycha Alaycha ñoo bokk ndey baay tey suñu yaay moo xelal rek la. <laughs> léegi nag en tout cas en tout cas yan yan yan conseil nga koy jox euh, en tout cas ci li des euh, en tout cas ci carrière am. <laughs> en tout cas waaw dama ko naan rek mu mel ni mu meloon rek qu'elle reste la même personne bu mu changé. Euh, joie de vivre bu mu am bu mu ko mës a ci àddinaam ndax nit ñi noonu lañ ko bëggee donc loolu dong laa am conseil bu ma koy wax euh, lan moo tax ci ci ci ci kooru Bidew rek lan lañ lay gis li ci ëpp duñ la gis ci yeneen série yi est-ce que mën nañ la xaar ci yeneen série waaw man Lalla Aïcha je suis polyvalente artiste comédienne laa bu polyvalente mais c'est que man j'adore la scène moo tax peut-être man scène laa gën a bëgg que peut-être yenn ay télé affaire yooyu xaw na xam naa peut-être loolu moo tax mais nañ ma xaaraat ci yeneen mën naa lépp de lépp laa mën nag. mais tey est-ce que rôle lu euh, jànk bi nga xamante ne yaa ngi koy joué ci biir série bi euh, ñu bëri di ko rafet lu ndax euh, sa tey sa dal sa jàppale bi ngay jàppale ki nga xamante ni moom moo la indi ci ci liggéeyam ak ni ngay toppatoowee xale bi est-ce que yaa ngi ci am ay retour waaw maa ngi ci am ay retour yu baax parce liggéey moom du dara defe naa ne kii nekk këram di liggéey moo kii xëy di dem liggéey ji beneen kër benn lañ amul benn différence loolu kese la ba ci am ay retour yu baax nag waaw am naa ci ay fans yu bare bare bare laa dama xew de laa dama xew dama bomb fi mu laay laaxay laasa law cat cat tu jëkkër na gaay ñëw ah bàyyi bas kanam looy mais ñu ngi fëgg. waaw ñu ngi fëgg waaw. mais pareego. <laughs> pareego ba dee dañu xam. ñu ngi lay ayca laal ayca. en tout cas merci en tout cas merci. noonu mbokk internetu Dakar Buzz euh, Ndeye Binta nag la ñu fi fekk ah borom série bu neex bi ah suñu député bu ñaawul bi Ndeye maa ngi lay nuyu. Lalla maa ngi lay fay waayul tooñ yaa gën a bel ñëpp. ayca <laughs> ban yëg-yëg nga am tey ci bésu daaru bi. waaw c'est une copine à nous nit ku baax la nit ku simple nit ku humble nit ku ñëpp gërëm franchement parler musul changer. man nag ma ah jëlee ko ne à travers Marème Fall mais Daaro man ba ma koy bëgg boobu xaw ma woon ni Marème Fall dina ko xam Dubaay laa toog di ko setaan dana ma neex di ree bay xalangu ba 4 di du matin Daaro dong moo nekkoon artiste boo xam moo ma tere woon nelaw yàlla def benn bis rek ma toog rek gis euh, sama xarit bi def ko ci statut man ne ko yow da nga xam Daaro mu ne ma man ko Marème su ma ñëwee di nga ma présenté Daaro mooy premier anniversaire muy daaw fekkante nañ fi te na ma ko gisee woon tamit noonu la gisaat daaro nekk na nit boo xamante ne booy xool ci jëwam mën nga ci gis daaro parce que nee nañu jikko nit du feeñ du du réer ci loo nekk rek day feeñ daaro baax na simple na humble na tey gens de sûr ni tey jii tey am na ñoo xamante ne tey bu ñu taxawoon place am boo leen dee nuyu sax duñ la faale yëkkati nañ seen ay mbagg wane seen bopp star kenn du ko dund da ngay bàyyi star dundal boppam ci sa yaram nit ñi gis ko di bëggee mais nit warul dund star te moom noonu la mel moom dundul star je l'adore je l'aime bien. yan conseil nga koy jox li des ci carrière li ma koy jox kii kenn dootu ko conseillé ti daaro dafa dafa dafa ràmpe te nit boo amee kilifa. jarutul ñu lay conseiller xanaa dañ lay njàmbaas moom yàqul sër ndax doomu ñay la kenn du ko ñaanal rek dañ koy ñaanal rek gudd fan voilà. <laughs> ñu gis la ci euh, série boobu nga jël rôlu euh, député bi ak euh, jamono ji ni mu yëngoo ñu ci bari nit ñi di wax ci ñoom ci wàllu politique bi tey est-ce que yaa ngi am ay retour ci ci sa rolu député bi. waaw maa ngi ci am ay retour di sant yàlla nag di julli ci Seydina Mouhamed bu baax a baax di ñaan ne nañ yàlla may rek ñu fekkee y'a d'autres choses qui va venir. da ngaa xaw a niroog maam Diarra Fam. li loolu wax nañ ma ko ba sonn et je suis d'accord hein <laughs> je dis pas non aussi. merci merci beaucoup merci. ñu toogal nag euh, di Marème Fall ñu bari ràññee nañu ko ci théâtre yi yàgg na joué rawatina nag jamono ji ñu ngi koy seetaan ci Lemzo série di xariti daaru ñu yàgg lool nag euh, Marème maa ngi lay maa ngi lay fay Laal Aïcha di nuyu. Euh, mbokk internet waa mbokk internet yu Dakar Buzz yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax. Euh, ñu gis la tey ci bésu daaru mu mel ni at bu jot rek ñoo koy feetandoo euh, nga fàttali ñu tuuti rek sa diggante ak daaru. waaw daaro sama xarit la sama doomu ndey la vraiment aar bi boolewuñu depuis xale dañuy xaritoo mu nekk ci côté di bay waaram ma nekk sama côté di bay sama waar ba yàlla boolewaat ñu ñu ànd comprendre nga. muy nit ku ñàkk ki ñaan ku soxorul koo xamante ni fi mu toll ci aar bëgg na nawlem yëpp egg fa yàlla nag moom mooy def mais di ko xap base tuuyu nit bu baax la bu ëmbal nit bu am sutura nit bu bëgg waajur nit bu bëgg ay mbokku artiste bëgg partager toujours daaro daal euh, nit ku baax la vraiment yaa baax moom du weesu yaa baax bu baax la waaye nee nañ tamit euh, kiy wax euh, mbaax moom it kenn gënu ko euh, yan conseil nga koy jox ci li des ci carrière waaw di ko wax ni fi mu teg tànkam foofu la wax dëgg neex yàlla fi mu teg tànkam moom baax na lool macha allah ndax kenn déggul ci moom lu ñaaw defagu fi dara luñ naan accam te soo nekkee ci ar nekk xale toujours nga teg sa tànk foo xamante ni positif na loolu sant yàlla la ndax ñeneen ñi nga xamante ni dañuy wax acam xëy na du seen bëgg-bëgg mais yàllaa ko dogalee noonu Daro daal di ko wax ne fi mu teg tànkam na ko continuer sénégalais yi bëgg nañ ko macha allah li muy def mën na ko kon boog yàlla ko yàlla lafal cat loolu laa koy wax. ñu ngi lay jaajëfal kontaan naa la Aïcha ok. Aïcha mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz ki ma fekk tey nag sama xarit la bokk ci doomu Daro yi macha maa ngi lay. maa ngi lay fay. waaw gis nañ la gis. <laughs> maa ngi nii rek laal la. waaye sa loxoo ngi ci soos de wax nañ la. moo daa nekk si benn soos. oh bàyyi ma waaye nag bu ma tooñ. waaye ca yëg-yëg nga am tey ci bésu daaro bi. am contentement ndax daaro dafa baax daaro mënuma wax ci moom ndax depuis xale la ba tey man ak moom ñuy ànd aar boole ñu nag ndax ba mu siy dugg si si laa si dugg si mu fekk ma aar ko Dakar ñuy ànd ba léegi dara ñaawul daaro man bu ma lee dara sax day daw. day daw daal bëggul daal man lu ma metti man damay am problème yenn saa yi sax dama ko koy ragal wax ndax da koy jooy wala di ko xalaat bu koy perturbé man damay ragal sax di ko wax samay problème ndax baax bu artiste yëpp meloon ne Daara Thiam no benn artiste du noonu barki yonent bi. Euh, yan conseil nga koy jox li des ci carrière am. Daara moom xam na fu mu jëm ndax parce que dafa am fu mu jaar xam na fu mu jëm bu baax a baax ndax aar bi boo si nekkee nga rampé si am foo jaar di jug di jug di jug di jug ba yàlla def ñëpp dégg la non dangay xam fi ngay teg sa tànk si kaw si kanam rek laa koy wax ci lu baax. mu ngi noonu ba tey ñu ngi ci euh, ci ci ci xew mi tabarkaal la gis ngeen ko lekk yee ngi noonu naan yee ngi noonu waaye nag dañ fi fekk kenn ku nga xamante ni macha allah suñu nawle la ci liggéey bi nga xamante ni euh, ñoo ko bokk di liggéey muy euh, Fatou Mbaye sénégalais nag gëj nañ koo gis Fatou maa ngi lay nuyu. ngi lay fay. maa ngi fi. loo làqatu. <laughs> toog sama rukk rek di liggéey sama liggéey waaw. ñu gis la euh, anniversaire daaw yaa ngi fi ren yaa ngi fi sa digganteeg Daaro lan la. waaw Daaro nag sama xarit la sama sœur la sama confidente la sama complice la sama lépp la nit ku baax nit koo xamante ne tey su ma yaatoo ci milieu art bi rek moom paaram mi ngi ci ndax yaatal na ma yéene na ma ci tout le temps lu baax lu mu gis rek damay woo ba ma ñëw mu ma Fatou Mbaye lii sa wàll ngi ci. daara nit ku baax la sama xarit la sama lépp la franchement tey bu ma demee ba yaatu ci koor bi déew grâce à daaro ak yeneen ak yeneen lem jour chéri bi tout temps rek lu am nañ naan Fatou Mbaye Fatou Mbaye nit ku baax la nit bien la koo xamante ne mën nitam nit koo xamante ne sans façon ni ma ko xamee nii noonu laa ko xamee foo kafaree ambiance loolu rek la xam euh, yan euh, ban conseil nga koy jox ci lu des ci carrière waaw daaro xanaa di ko ñaanal yàlla lafal ko cat may ko wér gu yaram ak gudd fan ndax soo nekkee nit mu xam fi muy teg tànkam kooku du laaj du jar nga koy jox conseil tey ki ngay conseillé mooy ki nga xamante ne tey xamul fu muy teg tànkam dama koy ñaanal yàlla musal ko ci cat may ko wér gu yaram ak gudd fan lépp li nga xamante ne soyam la rek yàlla defal ko ko yàlla may ko jàmm may ko xéwal sutura àdduna ak àllaaxira loolu rek laa koy ñaanal. amiin euh, Fatou ñu bari xam ko ci euh, euh, ci bi ñu jékki-jékki gisatuñu la lan moo waral raar bi non non pourtant maa ngi fi. da ngay doog a ñëwaat. non damaa nekk ci tournage ak Lemzo Chéri bi amu amu benn waa waaw parfois ma dem tournage parfois ma amee reportage dem maa ngi si sama coin jàpp sama ñaambur. <laughs> ana gars yi ñëw. gars yi jëkkër. non non gisaguma kenn na yaay dàqe wala gars yi ñëw. damaa gisul kenn. Fatou Mbaye fa nga bàyyi dàqe. waaw laa gis ba koy dàq. pare nga ni pare nga ku pare bu ñëwee pare. pare naa kay parce que taaru jigéen sëy la. parce que aar bi neex na tamit mais nga am jëkkër gérer sa ménage am say doom am sa famille loolu mooy base bi. Euh, mënuñ fi toog nag ba jog te waxuñu li nga xamante ni moo di tonton Médoune comme ni ko Jami di waxee sa patron ñu xëy xëy rek gis ko mu takk euh, euh, Jami te ñoom ñaar yéen ñett ngeen doon ànd ban yëg-yëg nga ci. waaw loolu yàllaa ko dogal Jami sama sœur la sama sama la sama xarit la sama lépp la Médoune sama papa la tey sëy yàllaa koy boole yàllaa boole seen diggante di leen ñaanal jàmm. di leen ñaanal seen sëy bi lépp luñ ci séntu yàlla na ko yàlla defal waaw di leen ñaanal njaboot gu barke lépp lu ñu seen seen sëy bi rek yàlla na ko yàlla defal jami sama sœur la medun sama papa bi bindeewuñ ko fii yàllaa ko bindee ca aras di ñaanal jàmm ah di nuyu medun sama papa di nuyu jami <laughs> yàllaay dogal sëy yàllaa dogal seen sëy yàlla na leen ci yàlla defal jàmm lépp luñ ci bëgg rek yàlla na ko yàlla defal vraiment nit ku baax la Medoune ku ko am am jëkkër parce que nit ku baax la jàmm ku ko am jabar ku ko am am parce que nit ku dal la mi ngi ci aaram mi ngi ci liggéeyam jàpp na ñàmbaram loolu rek la yàllaa leen boole yàlla leen yàlla defal jàmm. ayca <laughs> mi ngi noonu Fatou ñu ngi lay jaajëf. waaw maa kontaan di gërëm Sénégal di gërëm waa àddina gërëm ñëpp sama xarit bi di kontaan tey ci lii ñu dajale lii ñu boole fii tay parce que daara moom boo xewlee nii rek la mën a mel ñëppay daje xol yi dina yaatu dinañ kaf dinañ foo dinañ rey ñu ambiance. soulager rek dund luñ fekk yàlla na yàlla def jàmm defal ko mboolem jullit ñu ñëpp am jàmm waaw. ayca <laughs> mi ngi noonu ba tey dañuy dugg ci biir rek xool gars yi naka la ñuy ambiancé. kàddu yi ñu fi dégg kàddu sant yàlla la kàddu kàddu kàddu sant yàlla la euh, ci ci jëkkër ak ci wéyjur wax ji génnul jëkkër wéyjur ndigalu jëkkër. ngërëmu wayjur man dumay faral di génn ci yu mel nii mais dama am seetlu ni anniversaire anniversaire yi may dem moment la pour ñuy wax ci nit ñi lu baax euh, te damay bëgg ñuy wax ci nit lu baax xaj na ñi xamul ñi xamul xam nga milieu bi aussi dafa dafa dafa yaatu na mais na mais ñi xam daaru xam xam yaram bi muy doon tu tànk ba ma koy xam moom xamuma may jóge Gunaas di ñëw CFA ci fàllu Ndoye <laughs> nii la mu samel li ma gën a charmé ci moom en tant que critique d'art gis ngeen lu xew ci lu ñaaw ci théâtre ñu ngi koy wax di ko mettilu ci comportement yi yi artiste comédien yi di am bu nu waxee ñu ni ah ñu dañuy wane jikko yu ñaaw yi nekk ci société bi pourtant Daaro rôle yi gën a siiw ci mu interprété daanaka benn rôle baaxu ci mais dina ma neex Jamra mosu ko attaqué malgré rôle sordide bi ci Daara du joué euh, imam Mujamra bi CNRA suñu attaqué bu nawee pas fait la remarque pourtant ci suñu vécu traditionnel en tant que sénégalais jigéen togg rek la koy nawe daaro moo am particularité man damay ànd ak kii fu ne un peu partout à travers l'Europe lu ñu koy njëkk wax an sa jabar ju mënul togg ji mais et pourtant le rôle bien qu'il est ingrat, fascine les téléspectateurs. Ben oui. <laughs> <laughs> Alors, gis nga Daaro li mu indi ci production théâtrale malgré le rôle ingrat nit ñi dañuy wax kañ la dina ma neex di commencé waat bërki démb dama ànd ak kii police su Pikine du ma mu fenn ñu ñëwee inspecteur bi def ñu aju parce que dañu yéen ay artistes ngeen da ngeen ñu romb nuyuwu leen mu tàngal ñu tàngal <laughs> mu jig mun ko yow da teppal eh, fële waaye sa jabar ji mënul togg ci yéen da ngeen may daj eh man chaque jour dama leen di seetaan fii da daaro billaahi wallaahi taala daaro man duma wax pour li may wax yow taxoo damay inspirer la nouvelle génération xale yu jigéen ñi dugg ci métier bi bari na nanu am fulay daaru nanu am caractère daaru nanu am générosité daaro mais nan am aussi soumission daaro mooy déggal say wéyjur nga déggal sa borom kër boo fonkee li ngay def métier mi lu ne mi ngi ci démb démb à pareille heure la France dans son entièreté était en train de célébrer de manière solennelle un artiste Jean-Paul Belmondo le président de la France moo gunge cercueil bi un hommage national parce qu'il est artiste comédien nanu xamaat métier bi ñu am noblesse bi ci nekk te loolu la ñii di incarné am na ñoo xam ni jàpp nañ ni couple Daaro ak Dan dëgg la je vais vous raconter une anecdote dan en réalité xaritu layti la tudde layti doom layti tudde ko boppam saa yu ñu dajee lekko la dëkk moo tax bi pendoo di wax lekko ñuy wax maanaam dan day toog layti toog turandoo layti toog ñu am fa ñaari dan ak ñaari layti <laughs> ñu am ñaari dan ak ñaari layti <laughs> léegi doo xam kan moo ciy daan ak kan moo ciy lay di waaw sant yàlla moom suñu jigéen la dañuy sawar dañuy sawar on a énormément de choses avec el ñu ngi ñëw euh, parce que coow li coow li wuuteetunu dara ona n'a plus rien à prouver li ñu des mooy gunge xale yi te moom porte étendard la ku nga xale yi ndaw li ku ci bëgg a théâtre daaro mooy sa fan ci daaro ngay ñëw ana maam jaara notre fille maam jaara gis nga ko tey nu mu mel yàlla ak daara moo tax pourtant nag encadrement boobu muy def bu ko defuloon ci xale yi leneen mën na am genn golo gudd na loo ci laal borom yëg ko jërëjëf ñu nag say say tonton lan man musuma sàllalu moom tonton Pape rek la may wax man te duma mag yooyu de ci respect bi mu ma jox la ñi nga gis nag wax naa ko keroog ma daanale foofu benn xaritu lay ci am na ko yaa ngi xeex ak ñu mën a xeex ndax noonu duñ xeex xeexu wax dañuy dóor dana la jàpp li nga sa yaay yóbbante dégg nañ ko